chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di amaan mbégte janoog yéen ci seen chaîne leader bi lee di Equivox TV tey nag boo la ñu gisee dañoo changé un tout petit de casquette ñëw dugg ci li nga xamante ni rek moom mooy làmb ji seet si nag koo xamante ni kenn dootu ko présenté Sénégal muy Balla juuf ancien lutteur tey nag moom la ñu seet si fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni rek moom moo ñeen làmb bi wala ñu dugg nag ci li nga xam ne mooy waxtaan bi tout d'abord dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog ñuy seetaan à travers Equivox nuyu bu baax di la ziar di jàmm fii ci bi Equivox TV. waaw maa ngi leen di fay di leen delloo ziar di nuyu Sénégal ñëpp di nuyu mbokku làmb le monde de la lutte euh, di sant bu baax di gërëm donc kontaan trop ci li ngeen ñu seet donc ñu war a waxtaanee euh, loo xam ne mooy suñu sport national muy làmb donc yaakaar ni rek donc dinañ ci mën a si suñu xam-xam bu ndaw dinañ ci mën a participer wax ci li ñu xalaat. Euh, foofu laay jaaree nuyu mbokk internetu Equivox Equivox yëpp donc nuyu mbonu làmb nuyu suñu waa kër nuyu sama yaay di ñaanal suma rakk bi nga xam ne moom moo tawat yàlla fëgg boppam ba delleesu ko ci njaboot gi bi jaaxi na bi Moustapha prix euh, Balla avant ñoo dugg ci actualité làmb ji mi bëggoon naa rek euh, nga def tuuti briefing wala maanaam tuuti euh, chronique ci li nga xamante ni moom moo ñeel làmb ji ndax gis nañ làmb nam meloon am xel bu mu amoon wàññeeku na bu baax a baax ñenn ñi naan ñi nga xamante ni ñoom ñoo jeexal ñoom ñoo bëgg a yàq li nga xam ni mooy làmb ji bëgg cee dugal li nga xam ni moom mooy politique loolu tey ban chronique nga ci am wala lan moo ci sa gis-gis. waaw làmb dafa dafa dem dans tous les sens. dafa dafa dafa jaxasoo dans tous les sens parce que boo xoolee bi ñuy wax làmb ba muy neex bi làmb di neex tere yu bëri amul woon ci làmb bi làmb di neex culture la woon cosaan la woon ñu ko daa dund mag ñi daan ko dundal ñoom pa Alaaji su Jéen ñoom euh, grand sëriñ de dakaar à l'époque donc kilifa yi at mag ñi ñoo ñoo téye woon làmb léegi làmb nag ay investisseurs at ay businessman ñoo ko téye loolu mooy différence bi en plus que Euh, làmb ba muy neex euh, mbër yi dañ daa ñor xomm balaa ñuy bëre grand combat làmb ba muy neex mbër dara carrière ci mbapat ñu xam ko ci mbapat mu toj mbapat euh, bu dugg see ci làmb ñoo xam ne mbër mi dugg si na ci làmb mu commencé ci quatrième combat bu jógee ci quatrième combat pour ba dem troisième combat bu prouvé foofu dem deuxième combat kon yaa ngi gis amateur dañ daa gis ni mbër mi daa progressé looloo tax amateurs yi daa topp mbër daa topp mbëri yi daa topp mbër bañ dégg daal yi moo tax nga dégg mag ñi léeg bu ñuy commenter naan la diw dama ko topp fii topp ko fii topp ko fii parce que dañ daa gis évolution nit ki du dëgg euh, boo bëree deuxième combat ba prouvé fa nag ñu tëggal la spécial bu ñu la tëggalee spécial boo daanee door a bëri ji grand combat tax na bu njëkk mbër yi daa ñëw di bëri grand combat day fekk ñu ñor xomm parce que li ñuy daj ci yoon bi ba agsi léegi nag làmb moo demee noo xam ne euh, cosaan bi dafa réer business bi tegu te boo xoolee business bi léegi dem na ba euh, dugal dugal CNG ci business dugal mbër yi sax seen esprit business parce que mbër yu bëri léegi boo xoolee euh, coono yi mbër yi daa daj ci entraînement ci mën bës ci nangu ñëw làmb fight mbëri coono yooyu dajatuñ ko voilà voilà léegi business la boo xam ne léegi da ngay gis facilement mbër bu dem ba mbër bu dem ba combat am jege jekkoo wala nga yaakaar ni am tiitaange ni tey boo demee dañ lay daan nga ut certificat médical donc dafa dem ba récurrent dafa dem ba bëri donc loolu yëpp ci xeetu tricherie la waxuma ñëpp nag ñooy tricher parce que am na ñoo xam ne réellement dañuy gaañu ndax entraînement yi dafa metti mais dafa dem ba ñoo xam ne ñu bëri dañ ci laaxaale loo xam ne tey bokkul woon ci làmb du dëgg tey ñu gis ni tamit aussi mbër yu bëri dañuy bëre grand combat sax du ñu matal sax bëre petit combat wala prouvé wala nga gis léegi mbër benn benn combat ñaari combat ñu tëggal la grand combat ndax da ngay am promoteur boo xam ne dalaa bëgg wala da nga da nga da nga am bayre da nga bëri mbooloo donc sa bëri ñorul sa bëri bënul mais sa mbooloo mooy tax tey nga mën a bëreek ay champion mën a brûler les étapes mën a tëb ay étapes dem bëri ji ay grand combat bëreek ñoo xam ne sax waragoo bëreek ñoom loolu yëpp ci xeetu business bi nga xam ne ci làmb ji ci la tournée mais dañ ko encadré wul ba pare organiser ko làmb mun na nekk business mais aspect culture bi aussi ñu bañ ko bàyyi kon comprendre nga la nga xam ne moo ci cosaan gi la nga xam ne moo ci daa am la daa dundal làmb mooy mooy ru gi ah, am bi ñu bañ ko bàyyi bañ a concentré wu rek ci business bi business baax na trop ndax àdduna moo évoluer euh, lépp évoluer léegi làmb bu njëkk amul woon ay pay per view bu njëkk ah mënoo woon toog sa téléphone di ko seetaan foog nga dem làmb ji wala nga toog samedi ba toog une semaine après door a mën a seetaanaat làmb ji donc évolution am na mais lépp dañ ko war a encadrer ba pare organiser ko làmb àdduna lépp politique la. wax les gis nañ leen làmb làmb politique la euh, sport dafa ànd ak politique mais politique bu seen politique bu transparent politique boo xam ne dafa dem à l'endroit de de la jeunesse. politique boo xam ne tey ay mécanisme lay doon yoo xam ne tey population bi ak jeunesse bi dinañ ci tegu pour mën a évoluer pour mën a développer mais pas politique boo xam ne politique diw sama xarit la politique gu euh, maa jiitu damay encaisser ñeneen ñi duñu encaisser donc loolu politique boobu xaaruñu ko ci làmb ñun politique bu ñuy xaar ci làmb mooy politique euh, de développement politique boo xam ne tey dañuy ñëw teg ay mécanisme ci làmb yoo xam ne tey parce que bu ñuy wax CNG démembrement l'état la état moo ko fi teg donc état dafa am wàllam bu rëy ci làmb pour développer ko mooy parce que bu dara mooy suñu sport national tey fu ñu dem ci àdduna làmb la ñuy tiitaroo Sénégal li muy gën a tiitaroo à làmb ci la bokk du dëgg te làmb dafa am ministère yu bëri yu ko ëmb ah bon éducation da ko ëmb ndax entraîneurs yi at paa yi ñi ngi yar xale yi ci écurie yi ñi ngi def si ñoom ay valeur ñi ngi leen ñi ngi leen di def ay sportif tey ñu mën a génn ci lu ñu nekk ñëw dugg ci làmb ëllëg ñu mën a dégg daali mën a doon quelqu'un bëri na fi bëri mën naa citer exemple yu bëri boo xoolee tourisme tey làmb li muy dere na ci tourisme tey euh, au niveau de l'international ñëpp xam làmb parce que kuy ñëw sax da ngay xool say datu billet ndax programme làmb dina ci am nga mën a assister donc tourisme aussi euh, war nañ xool làmb tey mun naa wax ni euh, culture ministère de la culture tey waru woon xaar sax ñu koy woo ci làmb ndax làmb suñu cosaan la mooy suñu culture mooy suñu cosaan tey moom moo ci waroon saf-sàpp tey musique lépp dëgg la mais lu ñu jéggaane la mais làmb ñoo ko moom dañ ko waroon dañ ko waroon vraiment encadrer ba pare soutenir ko tey bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw ci sport tey làmb mooy benn sport ci Sénégal bu amul benn subvention parce que ñi nga xam ne ñoo ci nekk di ko développer muy les promoteurs privés lañ leen tuddee dañ ne les promoteurs c'est les privés mais làmb suñu cosaan la làmb war na mën a am budget boo xam ne tey day permettre CNG bi fi nekk mën di mën a organiser ay tournois nationaux tey di organiser ay tournois di di di di di sélectionner pour sax suñu équipe nationale tey am ay programme am ay vision yoo xam ne tey làmb fii ak 10 ans war nañ mën a intégrer ah, au niveau Jeux olympiques yooyu yëpp ay liggéey la ay mécanisme la ay démarche la yoo xam ne ay vision la yoo xam ne tey accompagnement d'État tey pour làmb mën a développer mais làmb du benn benn Balla Diouf wala benn kenn rek mooy dem jaayante fee am as tuutam ñëw xool mbëru koñam wala xool mbër bu ko neex tëgg ko yooyu yëpp mooy tax euh, CNG dootul am contrôle total ci li nga xam ne moo xew ci làmb parce que benn promoteur mun na débarquer ne yor xaalisam xool ku ko neex tëgg ko CNG da koy régulariser jël ci ay pourcentage am jël ci lim ci war a jël et loolu du làmb tey loolu moo indi je m'en foutaise bi bëri moo moo indi jaxasoo bi bëri moo indi làmb dem ba commencé soof nit ñi tu vois te nit ñi ni doon amee làmb en direct tous les dimanches amay tuñ ko noonu nit ñi dañ daa toog seen kër dimanche ñëpp seetaan làmb loolu tamit dafa bokkoon ci li nga xam ne mooy connecter population bi at làmb mais tey dañ dem ba yooyu noonu yëpp am xele yi xeex nañ fi yooyu yëpp tele yi xeex seen biir ñu dindi loolu yëpp tey per view ñëw tey làmb boo amee boo jëndul code doo seetaan donc yooyu yëpp yu ñu war a encadrer la waxtaanee ko organiser ko ba nga xam ne làmb ñëpp mën nañu ànd jëm benn benn benn sens mais bu ku nekk bu jëmee sa sens rek donc euh, mooy mooy indi problème yi. message bi euh, am na solo waaye dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy adafas guy gi Gui sànq wax nga ko si ay wax nee nga mbër danga daan def étape par étape mais dañoo gis ni xale yi mel ni dañoo yàkkamti ñu bëri naan Ada teel na mu jël ki nga xam ni rek moom mooy Gouye gi tey yow ban gis-gis nga ci waaw bon loolu lu ñëpp di wax la lu ñu seetlu la mais man dama dama bokk ci nit ñi xalaatee ni làmb du biir day xëy rek wasin mais buy wasin na nga fekk yow nga am sa xar am sa baas am say chaise mën a tudd du dëgg loolu mooy làmb tey nag euh, Ada Fass guy Gui gis naa ni taxaw na combat mais tey combat boo xam ne tey kenn xaar xaaru xaaru ko woon ci heure bi tey ñu ngi doon xaar guy gi mu amaat mu am yeneen vision yu gën a élevé que taxaw di xaar Ada Fass di ko jël d'autant plus que mu nekk combat boo xam ne risque la du dëgg Ada Fass nag euh, mooy li ma la wax rek mbër la boo xam ne bëri na bay rek saf na xorom euh, bëri na buzz comme ni ñu koy waxee tey euh, promoteurs yi loolu la ñuy wër parce que promoteurs yi c'est des gens yoo xam ne ci événementiel la ñuy dox gis nañ ne Ada Fass produit la mun na feesal làmb mun na drainer le monde donc ñoom ils s'en fout que dafa war a def étape wala nii wala naa dañuy xool mbër bu nangoo bëreeg Ada rek te comme guy gi moom moo nangoo bëreeg Ada Fass xëy na moom am na li mu ci namm am na li mu ci bëgg. est-ce risque la si ñoom ñaar ñëpp. combat boo xam ne risque la si ñoom ñaar ñëpp ku ci daanu moom na la leer nii donc voilà euh, sa carrière dina xaw a taggatémbe quoi. parce que après ñu bëri duñ la bëgg jël ñu nekk ci catégorie boobu duñu la bëgg a jël guy gi bu si bu si bu ci bu ko ci yàlla ñaanuma ko yàlla bu ci amee ndogal tey si fi mu nekk dafay génn kon tey day am yeneen boo yoo xam ne dañuy mën a placé wu pour mën a bëreek moom tey Ada tey bu bu ci yàlla mayee ndam fi mu nekk moom tamit daf génn mën a séntu ji leneen du dëgg tey yooyu noonu yëpp làmb moo bindoo noo xam ne suñu jamono ji tey munoo wax ne tey bu ñu demee ba ñu ne Euh, Balla Gaye bëri na ak mooy Boy ci période boobu ci contexte bi fi Balla yi nekkoon at fi Boy Niang nekkoon ci vois tey non yooyu noonu yëpp moo dem ba démystifier ñu jël benn mbër bu ndaw rek jox ko benn mbër bu mag. parce que léegi dafa commencé nekk genre mentalité waaw. tey lu toog lu yàgg parce que ku ne xam ne gëj na am combat est-ce que toogaay boobu tamit arrangé na ko ci koo xamante ni loolu moom mooy sa métier. waaw xam nga guy gi moom wax dëgg yàlla euh, def na carrière def na carrière bu baax du dëgg tey je pense que bu amoon bu amoon conseil am encadrement bu baax tey direction bi mu jël du ko jël mais nag choix am la parce que man nit ki toujours rek gëm-gëmam at choix am dama koy respecté du dëgg moom moo am choix jël Ada Fass xam na lu tax xëy na après dina dinañ jox raison yi du dëgg waa xam nga mbër moom mbër bu nekkee xale ba pare am lu nekk ci ginnaawam bari lool tey da nga koy xool ci kaawu Cité ba muy ba muy départ di drainer le monde parce que tey mbër mun na cuune ah mais monde monde bi muy drainer rek mun na stressé beneen mbër bi muy bëril te aada cuunewul mi xale la xëy na nag euh, defagul preuve bi tax mu war a bëre guy gi du dëgg mais nag làmb ubbeeku na ba mu jot ci parce que y a des opportunités yoo xam ne il faut boo nekkee mbër mu ndaw nekk ci sa yoon làmb di la xaar Sénégal ñëpp bëgg la du dëgg tey am na yenn opportunité yoo xam ne nga koy saisir tey man je suis d'accord avec Ada mu parce que mbër moom toujours da ngay xool lu lay progressé loo parce que tey Ada Fass fi mu jógee ah at fi mu dali tey euh, def na marché de progression mooy progressé na te mbër mu ndaw progressé lay laaj du dëgg tey nag xëy na teel na teelul man li ma waxoon ci bala Gaye booy Niang rek nañ bàyyi ba ci bés ba rek parce que làmb moom reenu ñàmmi la. waa làmb làmb amul niveau. làmb ndoxtu la. làmb biir géew la affaire nante la affaire bës la làmb da ngay ñëw mu nekk sa bës nga ñëw mu bañ a nekk sa bës du dëgg léegi nag ñaari mbër yi day dépendre rek ci seen état d'esprit guy gi surtout ci état d'esprit am mu xam ni moom il a pas droit à l'erreur combat bi daf ko war a def ci war a def fulla def ci fayde bañ ci juum Ada Fass xam ni combat bi lépp lu nga xam ne tey nit dina ko def pour am ndam daf ko war a jaral mais guy gi mooy favori loolu moom on n'en disconvient pas loolu kenn du ko laajte sax guy gi mooy favori parce que moo ko may chance moo tourné ba rek moom guy gi ci palmarès bokkul ak aada. ci combat Modou Lo Ama Baldé ginnaaw ndog-ndog bi nga xamante ni amoon na ci seen première combat taxawaat na mais gis nañ euh, combat bi Modou da cee def pat ak organiser Ama rek la ñuy gis muy défilé wu di wax mel ni koo xamante ni dafa xaw a xeeb Modou Lo bëri nga ak Modou tey naka nga gisee comportement Ama Baldé envers bëri naa at Modou bëri naa at Ama ñoom ñaar ñëpp bëri naa at ñoom waaw làmb moom toujours rek làmb toujours rek li ma koy waxee événement la. te Pikine dañuy dund événement tax dañoo tàmm événement dañoo xam événement Modou pat ak organisé moom la ko Sénégal ñëpp xamee. waaye man de su may dégg sax parfois yenn question yi daf may def ree parce que Modou ku xool parcours am war a toog toog sax di ko xalaatal ndax dina ragal benn mbër wala ñaari mbër. xool mbër yi mu dajal parce que koo xam ne yow ba ngay de ba ngay démarrer dañ ne woon doo dem matoo mbër nga nekk ci biir gars yi la leen duma ponkal yi ba ne coppet roi des arènes bi seen biir téye ko kon kooku ay ragalak ay sóoraale ay ñàkk mën bës yooyu yooyu dañ koy génnee teg ko fële gis nga nit ci àdduna am na niveau boo xam ne boo fa tolloo boo fa xasee ba toll rek dafa am noo war a doxee tey moo du dem ba nekk roi des arènes di topp ama wala di topp yenn xale yi wala yenn yenn immaturité yi di ko def tey il est roi des arènes mooy kilifa làmb ji te li mu yor da koo bëgg garder jalousement moo tax bëggul ku ko yàqal mu boole pattaga organiser mag la xale lay bëreel mu def yëfu mag bañ ko topp ci ay wax ak ay détails ay leneen ay leneen ay leneen amaa nag ci li mu nekk logique la parce que mbër boo booy wut te amagoo non foog nga xajam foog nga xajamal foog nga labajal foog mu attaque Modou Lo def tout pour énerver ko déstabiliser ko avant combat bi du dëgg yàq li nga xam ne moom la Modou xalaat pour bu ñëwee ci combat bi combat bi yomb ci moom loolu ci logique amaa la nekk parce que Ama moo soxla roi des arènes Ama moo soxla tey ah Kër Falaay le titre des rois des arènes dugg foofu kon tey da ko jaral lu nekk xale la yaramam tàng na gëm na ni moo mun móotloo gëm-gëmam la parce que nit kenn du ko xeebal gëm-gëmam man nit lu mu gëm sa sëriñ at sa gëm-gëm non bu ko kenn xeebal at sa bés loolu la gëm ba keroog nag li nit li muy gëm at li ne at la réalité du terrain loolu yàlla rek a xam mais daal Ama mi ngi ci logique am li muy def loolu la war a def ah, wane confiance wane deretu xale wane ni li nga yor dama koy jël par force saraxleen leen ndongo daara wala mu jël ak dooleem ci logique am la nekk mais mu bañ a doon loo xam ne da koy da koy da koy da koy teg pression boo xam ne ci jouru combat bi ba du ko antan waaw combat bi daal ku ko jour combat bi li may wax rek saa su nekk ñaari mbër yi ñaari mbër yi dañoo am avenir ci làmb ñaari mbër yi dañoo nekk ay yaakaar ci làmb te kii ba mu nekkee xale ba léegi bëtam ci roi des arènes la ko mës a teg te dem na tey ba yàlla may ko chance muy bëre at ki yor le titre roi des arènes tey mun na am chance bu jël ko kon combat boo xam ne ku lu ci nit pronostiqué rek mun nga jum ndax ñaari mbër yi bu dee bëre matale nañ ko bu dee xeex matale nañ ko bu dee am ginnaaw matale nañ ko bu dee mbëru dëkk matale nañ ko bu dee nag dégg daal yi ñoom ñaar ñëpp dégg nañ daal yi mais Modou nag mooy daal dégg daaliñ koor gi ndax moo yor waa des arènes te Ama loolu la soxla ci moom moo du loolu la xam moo tax mu li mu yor mu gàddu ko ne patt ak moom kee di xataraayu pour jël si ko Ama bu xataraayul du ko jël si foog mu xataraayu ci kaw Modou destabilise ko logique la c'est psychologique la làmb affaire u ceddo la li nga yor bu ma ko soxlaa duma la may jàmm noonu la demee rek. Modou Lo mooy dalinkoo bi ndax moom mooy roi des arènes yéen yow nga xamante ni bëri nga ak ñoom ñaar ñëpp kan ci ñoom ñaar am na lu sa morom amul ñoom ñaar ñëpp ñaar ñëpp ku ci nekk am nga lu sa morom amul voilà. ama du xaar ama lu combat metti metti metti léewtoom dafa ànd ak dox léewtoom dafa ànd ak dox Modou nag fépp la mëne Modou fépp la mëne fépp bëre da koo mën mën na xeex mën na am na am na vision ak lecture ci biir ci biir géew ci biir ci biir bëre amaa nag bu arbit ne për tant que bi jeexul non doo am jàmm foo taxaw mi ngi sa kanam nit du bàyyi mëninam nit li nga def ba dégg daali bu ko bàyyi du benn bés mooy ñëw nga changé ko nit li nga mën ci ngay daan ci ngay daanoo Ama mën na bëre tànk Modou mën na bëre tànk Ama mën na bëre jàppante ngemb Modou mën na bëre jàppante ngemb Ama mën na bëre ci ay loxo ci kaw épaule ci bras ci ay kal Modou mën na ko ñoom ñaar ci qualité bëre dañoo bokk bëre te bëre yi nag gën a ñorante te li ci gën a neex mooy ñaari mbër yi seen bés dafa mës a rëy Ama bësam rek dafa rëy Modou bësëm rek dafa rëy ñoom ñaar nag ñu boole la mu doon bës boo xam ne ñaari mbëri du ñu mayante dara dara dara dara dara dara dara parce que règlement de compte la boo xam ne c'est juste entre ñaari mbëri dem nañ ba staff bi dugg ci entre Pikine Parcelles ku nekk di wax mais ñaari mbëri dafa am lu ñu war a régler ñoom ñaar ñoom ñaar dafa am lu ñu war a régler voilà Ama dafa gëm ni. dafa mës a gëm ni moo mun Modou daf ko mës a gëm Modou gëm ni booy des ci làmb ji yëpp moo leen mën donc ñoom ñaar ñu bokk bëre doon ay mbëru dëkk doon ay mbër yu mag mbër yu am ay encadrement am ay conseil yu wóor ñu xam làmb di ànd ak ñu xam làmb ñaari mbër yu mën a bëre ñu mën a xeex. kon kon gëmoo ne yow comme nit ñi ñu joxee euh, Ama favori gëm nga ni làmb ji si ñoom ñaar seen diggante favori am na. non mais man duma jox Ama favori xam nga lu tax. Mm. un Ama mooy rakku Modou. deux euh, Modou mooy roi des arènes. c'est c'est le lutteur à abattre. donc c'est l'homme qui a à c'est lui le favori jusqu'à nga koy battre di jël le couronne tant que Modou mi ngi couronne bi ku muy bëreel moom mooy favori boo Ama tey jëloon couronne bi ku Ama di bëreel Amaay favori donc il faut pas que ñuy ñu voilà ñuy mélanger il faut que ñu ñu teg les choses dans les règles de l'art waaw. ñu tëjee ak euh, Siteu euh, Siteu ak ki nga xamante ni moom mooy Lac de mu nekk aussi euh, combat boo xamante ni ñu bëri ñu ngi ciy wax jur na ay polémique ban koo ni wala ban gis-gis nga ci am rek ñu daal di tàggatoo Balla. waaw combat boo xam ne wax dëgg yàlla combat bu nara neex la ndax Lac de Guiers ku naqaree bëreel la. Eh, Siteu tamit même li ñuy wax tey ci Ada Fass ñu ngi koy wax ci Siteu te Siteu sax boo xoolee moo gën a moo ëpp expérience ci Ada ndax bëri naa tey ñoom Zarko Papa Sow consort ñi nga mbër yi nga xam ne am nañ expérience ci làmb kon Siteu am na jaar-jaar tey te heure bu amee combat ñu ne noo kii moo ko mën kii moo ko mën bu ñëwee def créer surprise mu doon mit bi mu doon tey moog Lac de Guiers ñaari combat yu jiwoo parce que la Lac mbër la boo xam ne euh, mbër bu naqaree euh, mëne la ci biir géew te Siteu day bëgg day bëgg corps à te Lac de dafa mën a xeex du dëgg combat boo xam ne nag ku nekk mën nga am dara parce que tey Siteu kenn dootu ko miimal dara ci làmb man Siteu gëm naa ne amatul ku mënul daan ci làmb Lac de tamit amul kum mënul daan ci làmb ku daan ni moom daan Moustapha Gueye daan daan daan daan daan daan ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc am nga loo mën da koo nëbb kañ mais am na lu mu mën mais nag damay wax toujours rek la degeer mbër bu ko jël war nga mën a am pexe daan ko te yaakaar naa ne Siteu am na ci pexe. est waaw xam nga athlète moom bon doole du looy gis doole nekkul lu ñuy gis. un vrai athlète boo amee quatre-vingt-dix à cent kilos mun nga mun nga mun nga mun nga daan ku ne ci làmp vrai athlète nag laa la wax un vrai athlète koo xam ne boo ko xoolee xam ne dafa yaram bi dafa saignant dafa dafa dafa am dafa am puissance dafa am doole bokkul ak waxuma yaramu ndox wala nga non athlète laa wax un vrai athlète physique nga taxaw bien bien bati non amul koo mënul koo mënul vidé amul koo mënul daan ku mu mënti doon. kontaan nañ Balla Diouf ñu baale rek nga tàggoog ñuy seetaan. waa kontaan kontaan tamit aussi ci li ngeen ñu seeti donc voilà xëy na euh, wax yombul peut-être euh, li ci jub sunu borom la li ci dëng ñun la donc ñu ngi kontaan bu baax di gërëm sénégalais yëpp di wax ne nag sunu xalaat la ñuy wax léeg mu jub léeg-léeg du jub donc mi ngi noonu. jërëjëf kontaan nañ ça a été plaisir vraiment ci disponibilité bi euh, tey Balla Diouf moom la ñu euh, seetsi woon euh, waxtaan ak moom ci li nga xamante ni rek moom mooy actualité lamb ji j'espère que aussi tamit lépp ñu fi waxtaanee dina nekk loo xamante ni njëriñ lay doon ci yéen ñu ñuy seetaan di leen jox dig daje incha allah rabbi très prochainement ak beneen mbër wala beneen ancien mbër fii lay xewee ci biir Equivox TV jaajëf merci beaucoup.